di gërëm ñëpp di euh, ñëpp yoo xam ne ñëw nañu wuyu si di gërëm président de la république nga xam ne moom moo ñu sant diggéen ñu pour que ñu some bi forum bi moo doon forum bu am solo boo xam ne ñu si doon xaar si nit peut-être ñaari junni la mais tey buñ ko xaymaa ba gis ñoo xam ne ñoom ñoo ñu wuyu si euh, daanaka mat nañu ñetti junni ak lu ko teg Ah, donc loolu déjà mooy succès te boo seetee aussi ñu doon xaar surtout dëkk yoo xam ne ñoo ñu wër mais tey boo xaymaa ñoo xam ne ñoo ñëw déjà mat nañu soixante treize donc juróom fukk ak euh, juróom juróom-ñaar fukk ak ak ak ñett dëkk yoo xam ne ñëw nañ fi déjà loolu résultat la bu am solo la mais aussi présenté nañ ay projets yu am solo yoo xam ne ñii privé yi ñoo ko ñoo ko ŋànk ñeneen ñi nguur gi yeneen ñi ay ONG sax donc ak ay particulier yoo xam ne jóge nañ fu nekk ci boo defee ci cartographie projet di nga seet ni que daanaka région yëpp présenté projet donc moo fi jógee damay dem daje ak gouverneur Tamba euh, donc euh, dëkk région yëpp présenté nañ projet sauf ñaar donc malheureusement Kaffrine ak Sédhiou mais am nañu yaakaar ni que at yi du ñëw ñëpp dinañ mën a projet présenté ay projet ay projet PPP ay projet privé mais aussi ay projet yoo xam ne ay société ñoo ko moo aussi ay personnes individuelles donc dañu amoon benn kuréel boo xam ne moo doon saytu projet yi euh, c'est vrai que quatre-vingts projets lañu lañu euh, jëbaloon euh, comité d'organisation comité scientifique mais bu ñu demee ba seet si biir parce que si kuréel yi mel nii pour présenter projet il faut ñu am étude de faisabilité bancabilité donc loolu yëpp bu ñu ko xaymaa ñu retenir si cinquante et un projet yooyu lañ nekk di discuter ak bailleurs de fonds yi dañu am nañu yaakaar ne que d'ici ngoon dinañ am ay résultats yu baax.